jërëjëf mbokki internet yi ñuy bàyyi xel fu waay mën a ne ci réew mi ba ci bitim réew ñu ngi laa di nuyu bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay comme ni ñu koy defee rek ñu ngi waat Petit mbaaw hmm, gannaaw ba ñu jëlee bu laal noonu ñu jël rakk ji nga xam ni moo mujjee bari keroog euh, jouru Eumeu Sène ak Tapha doon na bari ci combat préliminaire yi moom as gaawaan tur bi nag dafa mën da koo léegi def ci Azico waaw Azuko nag fi mu ne moo xew ci jamono léegi du ñàkk ñu ñëw ci combat bi mu jot a bëre keroog arène nationale ñëw tamit ci carrière am ndax gëjoon naa bëre keroog mu ñëw bëre am ndam kon loolu yombul ñëw ñu waxtaan ak moom ci lu bare bari ci carrière bi waxtaan ak moom tamit ci combat bi nga xam ni mujjee naa jàll bari ki démb muy Siteu ak Lac de Guiers numéro 2 maa ngi lay bëgg bu baax Azuko. waaw naa bi ñu sant yàlla jël si yoonte bi di sant suñu ñaari waajur di wax de baax de onze billah bisimilah indawal yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba waaw ñu ngi sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax waaw di sant ñi nga xam ne ñooñu jàppale suñu combat bi nga xam ne si lañ jógee muy dimanche passé ñu ngi masaw ñëpp coono di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. am na solo keroog nga mujj arène nationale la mais laataa keroog yaa gëj gëjoon nga ci arène bi mën naa ni toogoon euh, ñaari at xaw ma ju suma jum wala ñetti at bëréwoo non yagul man ci combat Cheikh Tidiane nya ak Kaw Cissé numéro 2. te fils de lire mu jone see beure ak ki ñu tuddu feugale bu Ngor. beure na ci man ak bébé modlo bu écrit boyña yalla may man dab journée jaxé ba. kon lolu matul 2 ans. ma mhm. ñëwaat ren beure dimanche le 12 mhm. yalla mayaat man dam di sante yalla bu baax nak waaw mhm. mais yoon mi dafa xawa yeex ya, par rapport ak bil na daan dégg bu yag yag wa lolu mom moom la. wa yoon mi mo xawa yeex ya. mais daanaka ñun dañoo. basé wul woon si làmbu carrément moo tax yoon bi xaw a yéex mais daanaka ñun suñu benn morom def fi luñ fi deful. waaw mais dañoo jëloon làmb boole kook suñu liggéey moo ñu xawoon a le mais fi mu toll nii gis nañ ne nag làmb ji si am cër te dañ ko war a jël si. Hmm. waaw pare nañ pour jël suñu place si làmb ji. incha allah hmm. ñaata combat nga def ci arène bi. man def naa sept combat. Hmm, ñaata sept def naa cinq victoire def deux défaites. ok boo ma doon limal tey nga bëreel. waaw. ñi ma bëreel de bari nañ ci moy ci mako lim tay duñ fi jog waaw nak macca moma daan macca wa ak euh, armée bu kii ki rogue énergie ok ñoo ma daan waaw mais sa victoire ñala ñala sa sama victoire daan na 5 tonnes mhm. dan futa numéro 5 tonnes men 5 tonnes men wa borom wax ju bari ji ko ko ko yaako ko daan ma daan jarul lim dal jarul lim waaw nañu wax li ne sunu kanam rek. ok mais dafay lim parfois ngay ñu parfois dafay baax ngay ngay lim adversaire bu ko defee nit ñi ràññee la xam la. waaw xam nga loolu moom dëgg la mais tamit li passé passé na ñun xool li ne kanam rek. ok waaw man daal fi mu toll maa pare pour jaar sama place ci làmb li sama ginnaaw nag man dama koy fàtte mais li ne sama kanam laay wax. heure bi nga jëlal sa place ci làmb ji nag dafa fekk heure bu metti wi dañ ca tombé yi di ñëw di prouver. mau tax ma dëggalaat sama bopp waaw ndax làmb ji léegi dafa bëri ay boo yoo xam ne dañuy wut yoon ñi war a bëri seen biir duñ bëri seen biir ku ci nekk da xool koo mën a daan fa nga xool paabo bareel bëreel xam nga te loolu du làmb bu njëkk ay Balla Gaye ay Tidiane Faye concert googu ba ñuy bëri dañ doon bëri seen biir moo tax ñu doon mérito nañ ko mais ñun sunu génération moom dañoo bëgg lu yomb trop hmm. waaw dañuy tànn rek mbaaru génération bëgg lu yomb ngeen lañ tombel de tànn rek tànn rek tànn rek te dañoo war a bëri sunu biir waaw na xale yi bëri seen biir xale yi nag léegi xam lu ñu xewal mhm. teel leen ma gone yi ma du ma mag ñi waaw te loolu du yoon. tey ma yow bokkoo ci gone yi. non non man damaa bëgg mhm. na gone yi bëri seen biir mag ñi bëri seen biir mhm. mais am na loo xam ne yëfu yaafuus la teel leen ma gone ma du ma mag ñi xale yi nañ ñëw ñu bëri suñu biir ku ci nekk loo doon ñu xam ne yow mérito nga ko mais soo daanee benn combat ñaari combat ñu jox la benn paa nga daan ko ñu jox la xam nga après yow li nga doon sax doo ko mérito. ndax dañuy xam ne dañ naa wutal yoon te affaire warul am yoon. affaire yi moom dafa war a saf sap. billaahi. am na solo yow comme kan nga jàpp ne mooy sa adversaire jamono waa man samay adversaire bari nañu. du ma benn booy nag mu dama ko waajal waaw man parcelle am naa fay mel ni kan. bari na booy laaj bu laal yëpp nañ ñëw ñu bëri ku ma si daan bu laal may la chance. ña moo fi moo fi laaj bu. déggoo ma de ma tudd kenn dama ne laaj bu laal rakk bulaal laal a ñu bëre soo paree soo ma daanee bu laal lay may chance loolu sañ ta bañ la. barke yàlla maay barrage bi. ok nañ bëre suñu biir affaire dafa war a saf affaire warul yomb. Pikine am nga fi adversaire. bari na. Pikine waaw man bàyyiwuma kenn Pikine ak Yaraax ak Parcelles Médina man Fass man am naa fépp ay adversaire man mën naa ne man bari naa adversaire si làmb ji yëmbal fépp. waaw te bàyyiwuma fi kenn nag waa Thiaroye laa fi bàyyi waa jàmm gën waaw. c'est que booy yi nga débuté loon ci làmb ji dañ la dañ la fi bàyyi. par rapport li nga toogoon ñoom ñoom ñoom tooguñu ko woon maanaam yow li nga toogoon tañ ko daan bëre ku ci mel ni Mathia Pereira fi mu ne prouvé na ba bëre si kaw wax naa trois combats. dëgg la waaw nag mais doomu aadama bu nekk ak sa wërsëg waa xëy na ñoom loolu mooy seen wërsëg man jàpp man sax dañ maa raw. waaw ndax euh, dafa am si lu ma nekkoon loolu moo ma xaw a mhm. mais nag fi mu toll nii pare naa pour jëlaat sama place ci ji ñi ma daan sax pare naa pour bëre ñoom waaw ay match yëpp mais xale xale du jël revanche waaw nañ bàyyi ba ci kanam na booyee ñëw ñu bëre instant combat bu saf laa bëgg mhm. combat bu saf laa bëgg a bëre ndax tamit boo xoolee sama combat bu am na ndam mais ñëpp biñ ko dañ ne ma yaa ko bëgguma yooyu combat dama bëgg combat boo xam ne buñ sumee ko ñu ne ma tey kii moolo la mën wala tey nga dee làmb yooyu laa ba a bëre làmb jànk mhm. waaw. géejawaay koy fa bari na ay match ay ñoom ñëpp nañ ñooñu man bëgguma sax di lim. wala Lat Dior loolu du ci mën a ñàkk yàgg Lat Dior Lat Dior na ñooñu bëree. Lat Dior wéy kii na ñooñu bëree. Lat amagul combat amagul combat na ñooñu pare naa pour ñu bëree man ak moom Petit Lo na ñooñu bëgguma sax lim. barke ala ak Jackson bubun. Jackson bubun na ñoo ñu bari ñom ñep sama adversaire lañ pare na pour bëreeg ñoom ñëpp kenn mënu ma sé bañ wa ndax ay morom lañ. wa suñu bañanté dañu ragalanté wa lay loy sentu loy sentu ci lam ak lu la warat ci lam jamono ji. waaw li may ci lam moy bëgg na ci téral sama wajur wa bëgg ci ndax ñi ñi nekk fi ñu yegg gënu ñu mako mérito wa ku ci nekk nak ak sa wërsëg mais ma ngi ñaan yalla dal yegg iya fi samay morom yëpp yegg iya ci lamb wa mhm. lool lay ñaan yalla ta paré na pour ag fa mhm. waaw. ok lan mo la warat ci lamb jëmono ji. lima warat moy entraînement ba bari doole contact ba os. waaw ñëw jàppanteeg samay morom jëlaat sama place lamb képp ku taxaw pour ak sama mag bu la rek paré na pour ak yow te képp ku ma ci daan jabal né bu la da may sens lool sañ ta bañ la day am mhm. waaw ku bëgg a bëre bu laal rek maay ni na jaar ci man boma da ngay bëre bu laal waaw am solo genn ngeen ci combat yéen tarkindaay le 19 novembre bi ñu genn muy dimanche Siteu la de no jang jàngatee combat waaw di fil di encourager Siteu di félicité Lac de rek di wax na sax amul defet ndam la am ndax fi ay morom jaar ak la de rek fara jaar ak mom waaw di ko bu baaxa baax di wax na ñun ñi ci contane nañ ba fi contane yam citadel de desel dara li nit ñi yaakaaroon amul nak. li nit ñi yaakaaroon amul citadel nax nañu Nyapu ñepp ñëpp nañu fu la deger japp la mu jeex mais gis nga keroog woné na fula woné fayda woné jom ta lañ doon wax sax ne buñ jappanté japp bañ jappanté gisoo dara xew ta la fa jotam am cita ko def wa di ko diko di ko féliciter bu baaxa baaxa baax mhm. wa diko wax ne la deger tamit bu mu démérité mhm. wa na défar war xamné dafa ci lamb Hmm. ok carrière eh, sita wala sax adversaire Siteu laa lay ya? Wah, waaw Siteu eh, instant ay eh, adversaire am bari na Siteu mën na bëreeg Balla Gaye Siteu mën na bëreeg hmm, Ama Balde yo yëpp ay làmb la yo yëpp ay làmb jànk la Siteu doon li des si carrière am mënatu loo am lu yomb li des si carrière am mënatu loo am lu yomb ay combat soog rek ñoo ne ci kanamam waa di ko ñaaxaat rek mu liggéey li si carrière mën nañ na sax mo gëna met lim passé waaw na gor war xamna lamb ji amna ci cër ta sita tamit buñu waxante deug moy borom dekk bi. sita moy borom dekk moy borom dekk bi. kër gis ngeen nam def arène nationale. waaw boo Balla Gaye daa Ama Baldé daa non ñoñu bi dañuy xaar sita ni mi def arène bi amul balagay amul Ama amul kenn ku koy def arène nationale. sa way buñu waxtane wax deug sa le mais sita mom mom arène nationale. Mm. waaw foofu toolu maamam la ñu naan seen toolu maam la. toolu ma eh, toolu maamu Ama la. non non Ama bu doon. Eh, toolu maamu Ama la yow da ngay génn ko Ama rek gis eh, stade bi xanaa. Ama bu doon toolu maamam. Mm. mu feesal ko. Siteu mi nga xam ne moom mooy toolu maamam moo ko feesal. Ama Baldé keroog feesal na non fees defu ko ni ko Siteu def de. Siteu moom ni mu ko def amul mbër bu ko def. Mm. waaw mu toolu maamam la gars yi dañuy wax ni xëccoo bi ñu métti te ku ko ci wet na boo jàkkaaroo moom di nga xam ne foofu maamu moo ko moom. waaw yàlla mel bi kese. Ama Baldé bu jàkkaarloo Siteu. non loolu njàndeem la. loolu la àdduna yëpp di xaar waaw àdduna yëpp loolu la ñuy xaar. non tarkindaay ñeme nañ booy boobu. non tarkindaay ragaluñ dara. tarkindaay dañuy daw rek amuñu. tarkindaay nag ñoom ñoo waa Kër Falaay da leen a sonal de. barki yàlla tarkindaay ragaluñ loolu. waa Kër Falaay kan lañ sonal. waa Kër Falaay sonal na fii la mujj. bu laa lafi fi daan. dese sax moo ëpp benn combat la fi de. ne ko gone yi ñu ngi ñëw mom na préparé. ok waaw. amana fim ne ne da nan gaynde ko mer la. non ama te lamb gu lu lamb daf ko yag bëgg. ama nan la. mais kenn du sita man suma waxe waxee sax da nga na ma far mais qualité yi ma gis sita gisuma ko ci mbeur ok xam nga nit ñi dañ nan Balla gay mo dakk bëri ci lamb mais man gawuma loolu man jappu na na sita mo dakk bëri ci lamb ci ñi ko xam nak sita ko ko xamul xamoko mais ku ko xam di nga xam ne Siteu ndaanaan la ci biir ndaanaan yi. jàpp nga ni moo dàq bëre Ama Baldé. barki yàlla du moroomam sax. Mhm. Siteu gisaguma ku ko dàq bëre. li nga ko doon jooyal am na ko muy kattan. waaw te nag na ko gën a yokku rek. loolu moom su ko am daan ko du yomb ndax mbër la Siteu ñi koy seetaan sax xamuñu ko mais ñun ñu dëgg ak moom ñoo xam kan mooy Siteu. wallaahi ndaanaan la mën am mën na daan ku ne te mën am lu ne si làmb. waaw na góorgóor rek ñun roi bi nag dañ ko sas nee ko roi des arènes lañ soxla na jaayante ba andil ñu ko loolu dong lañ desel waaw. dëgg naa la. wér. ci loo ne mënoo bàyyi bandi bandi. non man bandi laa ba ma xoolee xam ne bandi laa. mais doo bandi arène bi xam naa. maay bandi maay bandi bu mag bi su ma dugg see gars yi may puus. doo bandi arène bi. barki borom daar maay bandi bu mag bi. man la yaf coo xanaa doo xoolee. ba ni yow yaay bandi arène bi. man maa yaf coo boroo gars nañ jël. ko na gaa yi ñëw ba may leen saa ñu bëre xam nga mooy loolu noonu ah. Bou Siteu nañoo ñu bëree. waaw làmb Bou nañoo ñu bëree. bu du seen morom de. barki Serigne Touba maa ko mën maa ko doole gën ko nekk xale. ëpp ko mbooloo. billaay wallaay. kii mooy yaf copporo. yaf copporo. man la copporo wi xanaa xamoo copporo yow. copporo coq la da ngay war muy sëq. te bu mu ko jàppee naa ko war ba ba <laughs> comprendre sax gaan man la gaan fi mu niveau daa yëg damay ragal mu bu jëlee sama bu ma daan ko jël bu rëy billaay wallaay maa ko maa ko doole maa ko mën wa taala barki borom daaru billaay wallaay fi doon MMA lay waaj xanaa bu ci jóg yow daa baax rek nañ dër bëri MMA maa moom nañ dem MMA bu ñu paree dugg si lamb ji ma daan ko jël bu rëy mu koy dóor mu tëdd eh. dama koy dóor mu këpp bu Siteu billaay walaay taalaay boo yeggee mais la ma tax ko combat ba léegi non instant mooy loolu ñoo ñoo ngi si ñu war a nekk rek mooy loolu non gars daw rek mooy loolu noonu xam nga mais bu ñu bëri rek nañ bëri mooy loolu noonu Siteu bu déggee li du daw billaay walaay bu ñu waree bëri ak moom rek nañ bëri moom mais na jël combat bi quoi loolu lay wax ni incha allah xamul ñoo ko gën a diamétralement opposé as wala Azuko laa ba fi mu ne as gaaw gi day deñ Azuko yi moo ñëw lan ngay tàggatoo waaw di sant yàlla bu baax di julli waar si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant ñi jàpp ci combat bu baax waa Poste Thiaroye mention spéciale ñoo ñaaw ma seen fay maa ngi leen di sant bu baax a baax Poste Thiaroye su ma damay juum maa ngi jël sant bi di ko teg ci loxo Ibou Diola grand petit grand maam Cheikh Sidi Ba Fallaaji su ma limee daal damay juum di sant waa Poste Thiaroye yëpp di sant waa Pout sama dëkk ñooñu aw ma seen fay ñooñu damay wax mention spéciale kere bi may bëre ñetti kaar moo fa jóge te ku ne xam na ne Pout du fi yëpp. may ngi sant waa Pout bu baax di sant monsieur le maire bi Malick Ndiaye maa ngi sant na ci combat bi di sant wa Sagnafil ah, sama aziko bi na fofu ma len leen di sant ñoom tamit japp nañ ci bu baax di sant wa keur Seydou Mbambara sant yalla ku lim da ngay jum ma ngi sant ñep wa di sant sama grand frère bu disantu di sant Sita abou Ndiasse Mama Lamine Koli bàyyiwuma kenn kendal di sant ñep wa ku lim ngay jum waaw di wax na na gaa yi ñëw nag ñu gaaw tooyalaat xaftaan bi suñu yaram tàng na te amuñu ñu ñuy xaar ay xale lañ bis bu ñu raw rek ñu ngi perte waaw. ñu ngi koy bëggewaat bu baax moom Azuko mbokk yi dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp jaa ngeen